mu soppi ko wala dañoo war a pourquoi 100 mais yooyu c'est des yaa nga fekk ah. mosuñu mosuñu góor bi fi toog ñu ne 100 jours ñu évaluer xoolal la def. Ibrahima mm. baal ma de maa ngi monopoliser wax. non mais daf may yëngal moom. Mm. mosuñu toog ci jamono. Mm. programme walla lu mu mënti doon bu Pastef tëral doo ca dégg ñu ne la bu ñu jëlee nguur gi 2 mois ou 3 mois ou mois ba 1 an danañu régler problème yii danañ la wax rek ni problème yi lu ñu mën a régler. waaw nga ñëw ne tey jii cent jour matal nañ cent jour matal nañ ñetti weer dañu war a kii commencé affaire yi du demee noonu. kon daal dafa xaw a yàkkamti moom. li ñu jot a def ñii ñii affaire étrangère laaj ko lu ñu fa jële ak lu ñu fa fekkoon <laughs> la ko loolu dinañ ñëw ci saa yooyu Diorine <laughs> euh, sa jàngat justement ci par rapport ak question écrite déjà bi ñu ko liree parce que j'ai écouté Abbas euh, mu ne déjà ci ci format bi ak ni mu ko ni mu ko ni mu ko xaatimee ni mu ko bindee y a beaucoup de fautes li nga xam ne moo d'orthographe et de grammaire naka nga euh, jàngatee taxawaayu Abdou Mbow mel ni wayul quoi <laughs> non wayul tam du boobu wayul. parce que ñoom xanaa xamoon ne ñoom fañ bàyyee nguur geex léegi boo ci rayoon xar sax du sedd. wallaay. waaw bu rëy nga wax. waaw bu rëy la wax. ñoom. gis naa dafa teel. mais wax ëpp na sax teel parce que ñoom ñii seen mauvaise gouvernement moom moo jur conséquence exode bu booy yi di def di génn dëkk bi di def parce que jeunesse bi demoon nañ ba gisatuñ seen bopp ci réew mi. et puis booy boobu papi papi Diop Kara. papito Kara ci yan condition la demee. c'est ça da après voilà. da doon. da doon gaal gi. <laughs> <laughs> Bamba yaa ngi ay wàccee ko comme il faut. <laughs> Bamba bu doon beneen tur. <laughs> Bamba ok yow nga ko c' un jeune bu doon def liggéey di contribuer pour la changement. ñu jàpp ko. Ah tëj ko persécuté ko. Ah ba mu xajatul ci dëkk bi. terroriser ko ba mu jël gaal gi dem ci xale bu am avenir noonu xam nga kooku waroon na nekk symbole. ci immig immigration bi génn quoi les crèmes la crème la crème de la jeunesse sénégalaise ñoo doon génn dëkk bi. Mm-hmm. ñoom ci seen ñoom ci seen ci seen douze ans yi lañ gisee étudiant buy jël gaal di dem ci seen douze ans yi lañ gisee fonctionnaire. buy jël gaal gi di dem. ci seen fo ci seen douze ans yi lañ gisee alkaati wala militaire bu jël gaal gi dem. waaw ci seen douze ans yi mosuñoo gis. douze ans yi fu makki sàll taxawee lu wala jaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo famille yi ñoo jël gaal gi ah. dem amul fenn kon moom bu fekkoon ne way na dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. du du jéem sax dugg ci ay débat yi quoi wala muy am lu muy laaj non simplement que gàtt na Abdou Mbow te xel mi gàtt na <laughs> est-ce que yaa ngi dégg wax ji te xam nga dama lay wax saa su nekk gis nga bu fekkoon ni li xewoon démb moo fi xew nga xamante ne élection présidentielle ak parlementaire yi la ñuy boolee def ko benn nga xamante ni da ngay voté présidentielle wala parlementaire xam nga ñoom kon assemblée bi dem nañ seen yoon bu yàgg. Mm-hmm. parce que ñoom amatuñ légitimité. assemblée amatuñ légitimité de. ça parce que cinquante trois cinquante quatre pour cent yi nga xamante ni moom la ñuy moom la moom la Pastef gagné premier tour. peuple bi peuple bi moo légitime. te boo xoolee jafe-jafe yu peuple bi dund yëpp du 12 ans Macky Sall yi. Mm-hmm. loi yi nga xamante ni ñoo indi émeute yëpp ci dëkk bi. Mm-hmm. yi tax xale yi dee. ñoom ñoo ko voté. Ah, <laughs> ci ci parlement bi lañ ko voté hmm? ñoom ñoo fi dem yëg député ab xale bu jigéen jiiñ ko au lieu que ñu jaarale ko ci yoon. ñu mm-hmm. xëy suba nem ne dañ koy convoqué bàyyi fa loi yi. waa ji ne leen dem leen ngeen jaar ci yoon ñoom député yi ñu gàpp fast track dindi mm-hmm. malaanu député am ngir lan mën ko jote ngir lan ay benn objectif éliminé loi parrainage ñen ñoo ko fi dugal ñen ñoo dugal alkaati yi gendarme yi biir mm-hmm. biir biir parlement ah ñoom ñen ñoo voté pour ñu renvoyer sunu élection dix heures avant l'ouverture ñoom ñan ñoo taayal ami Aminata Aminata Touré biir assemblée. non loolu sax nga da nga koy personnaliser. Ah. mais xoolal yooyu nga xamante ni peuple bi ñoo ko moom. Mm. c'est sacré muy rendez-vous xam nga peuple bi bu la bu la bu la peuple bi mën na juum votel la mais peuple sénégalais dañu gore ñoom bu ñu juumee votel la mën na bu ñu amee lu leen metti ci yow mën nañ toog di naan attaaye cinq ans di xaar bis bu rafet mm-hmm. mooy bis bu ñu bu ñu war a changer ñu changer la wax ji jeex tu vois mais ngay provoquer ah di di def ay loi yoo xamante ne c'est des lois njuuj njaaj ban président lañ fi gis mu taxaw ne ba weesu naa fu ah? ban président lañ fi nga xam mu ne am na dossier yoo xamante ne maa ci dëgg sama cooñ. sama cooñ. moo hmm? tax réew mi de. Ah? maanaam fen ak sàcc ak wuruj rek lañ nekkee woon ci nekkee ci parlement bi ah di di seen intérêt benn loi lañ fa mës a voté contre Macky Sall mooy ba mu amee intention wu. pour ñu am possibilité tas assemblée. ok ñu rejeté ko ñoom parce que lan la ñuy wax Macky Sall dañoo am ay bor. moo leen ko sant loolu yëpp ay ay ay kii la kamara <laughs> léegi ñoom ñoom seen wàllu bopp am ñoom dañoo war a noppi xam nga ñoom lan la ñu war a def fi mu toll nii mm-hmm. ñoom dañoo war a def woote congrès seen biir ah, parti comme ñoo nekk opposition koy foog ñu alerter aussi loolu mënu si ñàkk xam nga opposition bi tur bi rek fi nekk ah, ñii ñoom du ñu teree ñoom Sonko nelaw ñii ñoom du ñu teree gouvernement bi nelaw bu dee ab benn bokk yaakaar la rek ah, mais temps yi nga am nga ci la parce ko posé waaw que euh, li Abdou Mbow di def également est-ce que du du du euh, li nga xam ne mooy dimbali état bi justement ci par rapport question jeunesse parce que on voit que nguur ñëw da ci am euh, tolof tolof président Macky Sall woon na 65000 jeunes 65000 emplois finalement 63000 la wax que ne moom la utal ndaw ñi est-ce que bi nga xam ne toog nañ fi. non je pense que ñoom eh, amuñu leçon boo xamante ni si war nañ ko mën a war nañ ko mais ñoom c'est le passé ñoom c'est le passé ñoom nekkatuñu waaw mais le mais conséquence xam nga tey jii boo defee dara tey mën nga feebar nga wér mm-hmm. mais conséquence su maladie bi mën na la topp ah sécurité. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, c'est des conséquences peut-être de la mauvaise gouvernance sur, la, sur les question migratoires. Mhm. Parce que problème mu liggéey bi comme sànq imam wax na ko nee na am na ñoo xamante ni si ñoo ngi leen doon jox xaalis. Mhm. ñuy dugg dem ci géej gi. te loolu également euh, am na koo xamante ni si moom moo ko corroboré sa veut dire l'ancien directeur de la de la kii la euh, DER la. Euh, la de la de la DER le gars là Amadou xawma Sarr nu mu santoon Sarr là je pense. Mm-hmm. mais qu'est-ce qu'il a dit quand on il agi de demander fan la xaalis bi dugg xaalis bi ñu lebaloon jeunes yi mu ne jeunes yi dañ kaa jël dugg ci géej gi. maanaam lan la bëggoon ah? dañoo jël xaalis bi dañ leen lebal après ñu dem ci géej gi. <laughs> ça veut dire que ñu xaalis bi léegi yow pour nga topp ko pour nga xam yow fan la xaalis bi dugg ça mm. déjà c'est c'est c'est un peu. compliqué mais xam nañ ko Ibrahima. waaw ñoom ko. c' est ça en plus question migration également du loo xamante ni si dafa dafa bees mm-hmm. phénomène la boo xamante ni si vraiment ça a rythmé quand même la vie de beaucoup de pays donc am na ñoo xamante ni si du du parfois sax du question affaire pauvreté